nañu dellu ci sunu borom mm-hmm. Mm-hmm. seet yi mu ñu digal mm-hmm. tabaski àcc na ñëpp wut seen i waaw boo ne man aaroona par exemple oh. ci misaal rek uh-huh. wala maas ne man benn cent mille laayoon dama koy korkoral ba duma tabaski xam nga lu la yàlla def xam nga da doon korkoral yàlla koy kar nag teg ko loo xam ne waxuma cent mille mais cinq cent mille moo koy réglé man na ko teg feebar maa mm-hmm. mu teg ko jabaram maa mm-hmm. mu teg ko doomam mm-hmm. cent mille dem ba mu lebi bor teg ko ca su ko jaayante woon ak boromam nag lii mën na ko bañ a fekk man kaana lillahi kaana laahu lahu ku ne ndigalu yàlla def ko na mu la ko sante seetoo ci sa bopp dara soo ca paree da nga yëg ni ki nga a mat defal moytu leen ñi nga xam ne dañ leen a jël di leen fay di leen waxloo mm-hmm. muy yenn ustaas mm-hmm. moytu leen leen mm-hmm. yenn politiciens yi nga xam ni ñoom it léeg-léeg ñu waxloo leen ñu jéem a dugg ci biir euh, euh, camp yi diine moytu leen leen xam nga nu ngeen di def topp leen alquran ak sunna yonent bi nañu uut xari tabaski ñu tabaski karaw ya bu ko ca taqee moo xam Eh, réew mi ñu rey rey fi ay mbaam ba jaay ko gis ngeen ko waaye yéen itam. Mm-hmm. Mm-hmm. wallaahi <laughs> waaw. Uh-huh. Mm-hmm. ay mbaam déggu leen ko fi yoon. dégg nañ ko kay. Ah, fu mu mujj mu jur ah. ay mbaam la mbaam menn. ak nag yu met di ñu jël leen fees dem di jaay nit ñi. yooyu yëpp amoon na fi. Eh, te yooyu moo gën a garaaw. jikko yu bon yii ñu yore. nga xam ne moo am ci jamono bi. billahi corona ko tane parce que jikko ju bon hmm. li mu mën yàq ci société hmm. feebar mënu ko faa yàq hmm. xam nga lu tax feebar buy ñëw day dem jikko ju bon day law ci réew mu mu ne caaxaan dindiwu ko Serigne Cheikh nee na jikko ak karawayam karaw booy wat mu sëqaat jikko yi dara nga ca mënu kenn mënu ko nëbb ni nga mel ak li ngay def mm-hmm. ak lii sa jëf mm-hmm. maas mënoo cee nëbb dara mm-hmm. déedéet déedéet ci ko kenn mënu ko nëbb moo tax li gën nag nañu delloo sunu bopp ci suñu borom nañu del ci ñi nga xam ne wax nañu lool nag nañu jël wax ja delloo ko fañ ko génne woon mënuñ tee julliti yàlla yi ak jaami yàlla yi ut xar tabaski mënuñ ci dara lu ñëw rek ñu ut benn waay wax mm-hmm. mu tabaxal ba xam yow mm-hmm. def nga ne tabax ana xanaa ñun mënuñoo jéeg ak màkk mm. <laughs> toog ay ay jamono suñ jàkk yi ñu tëjal ñu ko mm. ñu wëlbati ku tabaski ñu weeru koon ñu ne dañu dañuy cabaxal ba xam lu nit ñi wax mm-hmm. ñu jógee fa ñu ne léegi tabaski gi way way feebar bi mën naa laal xar yi mm. na ko laal ñu laal nit kay mën naa laal xar mais après après suñu digganteeg suñu borom. Mhm. mais dara du ci dox nag. Mhm. ku ne ne gëmal la nga gëm nekkal ca la nga ne mhm. bu tabaski jotee bu la neexee bul tabaski sa affaire la. waaye ñun yàlla moonu moom. yàlla moonu sant. li munu sant la ñuy def aaroona. politiciens yi. kenn ku ne sa leader jaral na la lu ne. dëgg la walu dëgg. yaa ngi koy xulool dëgg la walu dëgg. jaral na la yenn engagement yi dëgg la wala dëgg. dëgg la de ñun suñu leader mooy yàlla jaral mm. nañu lu ne. Mm-hmm. moog Rasulullah. mu mm-hmm. mm-hmm. ne tànnal ka neex Pape Gueye. dëgg la de tànnal ku la neex. mooy dëgg de. mais ngeen may ñu nag ñuy ak suñu leader yi nag. yàlla moom la ñu am. mooy sunu borom. yonent bi la yabal ci ñun mooy suñu yonent. point. dëgg la de. ndigal lu jógee ci yàlla muy jiwlin bi. jaar ci lantinoor bi muy Muhammad mhm. bu yegsee ci yi muy ñun mhm. appliqué rek mhm. jëfe rek waaw loolu may leen ñu jàmm nag yéen ku laal seen leader ngeen xulool ko ku laal président am na ñu koy xulool ko xaan laal ministre am na ñu koy xulool ko laal député am na ñu koy xulool ku laal borom xaalis am na ñu koy xulool <laughs> seetal loolu. ñun mas nañ def foofu benn émission ay oustaz dem def benn ci benn site. ne mhm. dañuy attaqué. taa mhm. ah, waaw <laughs> lu tax ndax ab borom xaalis. ci tudd ñu leen taasuñu leen. Iran ku ko xam-xam ne ragalul dara. Eh, eh, man ku ma bëgg a tudd sa tur laay jaar bu doyul ma dëkk ci sa dënn jàll. dëgg la baaluwuma la. Mhm. dëgg la de. yow nga mën a tax ana borom alal boobu ñu doon kaasa ana mu tey mm-hmm. ana ñu ña ko doon kaasa. waaw lox loolu. baa nañ ko bu yàgg saaga ko maam. waaw lox loolu. <laughs> bàyyi leen caaxaan. Mm-hmm. aaroona. Mm-hmm. nañ dem ndaari toog fa. wiiri wiiri. jaari ndaari. xam nga kuy ndaari. mooy yàlla. waaw dangee ba dang ba dang ba dang ba dang. nga dégg ah yàlla rek a fi sës la. di nga wàññi. waaw. yàlla rek si sës mhm. yàlla rek fi nekk mhm. Mhm. kon nañu góor góorlu ñun sunu leader leer na yàlla ñu moom moo nu bind moo moom yenint bi moo ko bind du doomam du jarbaatam du sëtam du deretam yàlla jurul kenn daa bind ñépp Mm-hmm. yonent bi jaam la abdullahi wa mm-hmm. rasul mm-hmm. yàlla yi lim soxla wax ak ñun mu jaarle ko ci lantinoor boobu di muhammad alayhi salaatu wasalaam lantinoor boobu itam diw gi ci biteel yi muy kon nangu nag yaa xam ku lànk mhm. yaa xam mhm. waaye daal ndigal lu jógee ci yàlla appliqué mooy farata mhm. kon am ngeen sas waay waay waay waay waay aaroona maam ji fii ma ne muy Tiwaawan mu jógee ca gaaya di waalo waalo di jolof jolof ñëw daanu fii ci Kajoor lu ko fi indi woon daara jàngal mag yar mag jëlee fi ceddo gi mhm. jëlee fi lëndëm gi mhm. indi leer ci waa woon mhm. ba boo fi jógee dëkk boo dugg buñ ne ci waa woon la jógee bu dee jullee néew élimaan ja ne la bismillah ndax ormaale ko siidaaji maalik su fekkee wasifa la ñu ne la yaay tëj su dee xadara ñu ne la yaay tëj su dee julli ñu ne la doxal ñu jul ndax ormaale ko siidaaji maalik ak dëkk bii nii mu ko def kooku taxawaay ba ñëw daanu fii ci Tiwaawoon hmm. ñu denc ko ci suufu Tiwaawoon waaye hmm. waaye yooyu leader hmm. diine jaral leen lu ne nga dem ci sunu maam jëli ci Tuuba nga xool fi mu jaar biñ koy bëgg yóbbu ci géej gi amul dëkk bu mu jaar ci yoor yoor jotul mu julli fa ñaar rakk di ko def ba yegg ba dem géej ba wëññeeku te fële tey ci Touba. Mhm. yooyu liggéey mënuñu am sët yu ba maam yu mel noonu. Mhm. ñu liggéey li ñu liggéey. Mhm. ñu xam seenu njàmbaar. xam li leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral. ak maam yi ma tuddul man su ma tuddee kenn ci ñoom wala ñaar yóbbu na ñëpp. waaw yóbbu na ñëpp. xam nga ko fi ne di lim diw lim diw mooy ñi nga xam dañuy lim di ramasser ji luñ leen jox. man damaa ramassé wul tus. <laughs> dëgg la <laughs> soo limee ñaar mu yóbbu ñett. voilà mais c'est ça le problème. ñun waruñ fi mën a nekk nag suñu maam yi dem bàyyil ñu fi lii ñu fi bàyyi ñu am ñàkk fayda di topp borom alal ay borom yi dërëm di di nekkal ay ay nit di leen di leen défendre wala di loolu c'est pas normal. Mm-hmm. li ñu ñun li ñu diine sant mooy defar. Mm-hmm. defar. Mm-hmm. kon li am solo daal ba am sol usaaroona mm-hmm. mooy niñ leen góor góorlu yéen boroom xam-xam yi taxaw leen mm-hmm. taxaw leen de mm-hmm. oustaz dama lay poser question bi ñu fi songee daar yi ne dañ leen di tëj di leen ramax di leen yóbbu est-ce que politiciens yi dégg ci kenn ku dul taalasin la ku jóg menn moom kese ndax dégg nga ko ci réew mi. wallaay dégguñu ko. Cees googu nga dëkk laax ndax dégg ci benn Cees waa bu ci jóg. dégguma ci kenn ku dul taal si la. dëgg la mm-hmm. eh, waaw. ci bu ñu laaloon président ñëpp jogandoo. Mm-hmm. dëgg la jogandoo xam nga lan la am. Mm-hmm. koppar. ñu dégg la ca rek ne Iran jàmbaar la ku bëgg a Macky la pour Macky wooma. eh oui loolu rek la. <laughs> loolu rek la Oustaz waaw Talla Sylla ak oustaz Iran de lañ ci dégg. waaw dëgg la de. mais <laughs> man dama cee bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga man dama cee bokk. Mm-hmm. maa ngi ci su maa ngi sama maam xalifa nekk fii ak samay rak. ma seen sëriñ de sëñ Babacar yi seen man aw ma taalib. man seen magu daara laa. ñeme wuñ koo weddi bés bu ne loolu laa leen di wax. seen magu daara ma ni ci daara ji loolu la ma suma baay dénkoon mhm. loolu la la sa baay dénkoon mhm. ñun ñëpp dénkaane daara la mhm. mais ñun sax ñu ñoo xeex daara wallaay ñun koy dañuy gërëm ku ñu jàppale ah waaye yow bu diine joo xam ne boo juddoo. Hmm. bu sa doom juddoo nga ne aaroon na kaay tuddal ma. Hmm. wallaahi nit dee nga ne ko kaay xotti càngaay. Hmm. soo paree nga ne ko sangal ma. soo paree nga ne ko sangal ma. soo paree nga ne ko ñaanalal ma. soo paree nga ne ko dugalal ma ci bàmmeel. soo paree nga ko wàccel ma kaamil. soo paree nga ko defal ma fi daaw. soo paree saaga ko maam. yow doo nit. wallaay ba pare saaga ko maam du nit. Mm. daara su génnee ci kaw suuf suuf alku. Mm. Mm-hmm. alxuraan rek a mën a defal mm-hmm. su fi génn suuf di mm-hmm. alku. yow daara defal la lii leen. Mm. su élection ñëwee ñëpp tiit ñi daw tuubaa ñi Tiwaawoon ñi Taaleen ñi Ñaseen. ñi Kunti euh, Kunti. fu ne nit daw dem. sëñ bi defal ñu ñaan. Hmm. incha allah buñ jotee ci réew mi. bi hmm. ñuy dugg seet ni dëkk bi am na lu fi manqué. Hmm. danañ ko def. waaye yow boo jaaxlee dem ci daara. ba pare bëgg a jaaxal daara. mënul nekk. waaye tey. Eh, eh, yàlla ñëw na. yàlla ñëw na. ñëw yàlla mooy. wax na ni sama kàddu gi bu leen tiit. danaa ko sàmm. sàmmaali képp ku ne ci biir mm-hmm. kon oustaz seen wareef mm-hmm. muy borom xam-xam yépp mm-hmm. mooy taxaw défendre cause u l'islam défendre cause u diine te bañ ci nag bañ dara nañ la xañ ñoo xam mënuñoo xañ yàllay xañ nañ la may ñoo xam mënuñoo may yàllay may soo gëmee loolu da noppalu da noppalu Cheikh El Hadj Maa di daan wax ne. Hmm. ku ma mën a warlul ne da dund ba déwén doo dee. Hmm. ma warlul la ne da lekk ba déwén. Hmm. man maa li. loolu muy firi. du karaama de. dafa bëgg a wax ne wa maa min daabatin fil ardi. illaa alaa Laahi rizquhaa. ku dund da lekk. donc ni ñu góorgóorlu tabaski gi daal mu ngi noonu. xar mu mat sëkk lañu wax. ba ca gën nag na am at. na am at mm-hmm. moo ci gën mm-hmm. xaru tabaski kenn du ko associé mm-hmm. nañu cotisé jënd xar daganul amuleen tabaski waaye am ngeen nag ndawal ndawal ga lekk ko dagan mais amuleen tabaski am na ko wax ne wuy ab dëkk mën nañu associé jënd nag danañ am tabaski waxul dëgg ki wax loolu waxul benn dëgg waaw tabaski kenn du ko associé wa taraknaa alayhi fil aaxiriin mm-hmm. mais ku ñëw mën nga ko. Mm-hmm. lan moo tax Cerno Jibril mu ndaw sa doom boobu aaroon. Mm-hmm. lan moo tax ki nekk sunna ci moom bu amee. parce que moom moo tax ki ñëw xale la. ci waral mbir mi ne gan gi tax ñu rey nag yi. est-ce waru cee lekk. xale bee tax tabaski ñëw. Ismaayila tabaski moo tax xar mi ñëw. ñu nekkoon kon nag sunna la ci xale bu ko amee. haajara mi yaayam hmm. Hmm. moo jur xale bi hmm, ki nangu na ñu ne kon sunna la ci jigéen du jëkkëram a koy wutal muy wutal boppam waaw jigéen ñi bàyyi leen xel ni ni mu doon dooni sunna ci góor la doon sunna ci yéen moo xam marié la wala marié wu ñépp a ci yem xam nga nag aaroona lu indi coow li maaf daawul tabaski ba takk njaaya doog a commencé tabaski. Mhm. moo tax bu indee xar mu ndaw njaay ni ko ca mhm. xaw ma da ngay xaw ma da ngaa yor rab bëgg a faj ca bit. Mhm. ko defee nag coow li ne kur. waaw njaay mu ne timbale leen ma. yàlla ne wax na dëkk. ba mu dooni sunna ca maas yàgg na. boobu amagul jabar. bi ko mu am jabar def kon sunna njaaye lay def. njaaye na tànn xar ma ko neex génneel day ndëpp. acca mm-hmm. <laughs> ah mais mais mais Arouna mm-hmm. seetaan ko. wallaay mm-hmm. dëgg la de. mboolem yi may déglu. Mm. kenn ku ci ne tabaski sunna la ci yow. moo xam célibataire bu góor la moo xam bu jigéen la. moo xam xale wala mag. ñëpp sunna la ci ñoom. ci ku ko ci man. yow tabaski woo ba am jabar. ndaw si tabaski wul ba am jëkkër. ba poy yéen jëkkëram. yàlla ne jëkkër ji yenul yéen a yem di. ndax defoo koon ba ba ma la ko sante mm-hmm. bi nga amee jabar nga ko commencé mm-hmm. ndaw si defu koon lu ngeen def yéen a xam mm-hmm. mooy haajara tax muy sunna ci jigéen ismaila tax muy sunna ci xale euh, maam ibrahima tax muy sunna ci mag kon wàccul kenn ci ñi ma wax nga wut na xar mu mat sëkk du lu ñuy cotiser du lu ñuy associer déedéet waaye nag dagan na dagan na. Mm-hmm. Pape mm-hmm. Mm-hmm. ak ñaari frère am. ma la bu ma fontoo. <laughs> Oh. dagan na maas. yow. Pape Gueye. Harouna yéen a bokk ndey ak baay. wala ngeen bokk yaay. tabaski jot Pape amul lu mu jëndalee maire bi. lim yor matul. maas lim yor matul. Harouna lim yor matul. ngeen cotiser yéen ñett. wala yéen ñaari doom yi mm-hmm. Mm-hmm. wala yéen doom yi yëpp mm-hmm. ba mu nekk trois cent mille ngeen dem jox ko seen yaay wala ngeen dem jënd xar jox seen yaay mu tabaski maire bi am na tabaski bu dee paa bi am na tabaski waaye li bon mooy yéen ñett ngeen cotiser ku ne trente mille dajale ko jënd benn xar rey ko ne da ngeen koy bokk tabaski loolu wérul boo boo wérul mhm. waaye yaay ju ñu cotisé jox ko mu jënd xar mhm. cotisel papa jox ko mu jënd xar mhm. loola wér na dagan na waaye cotisé jënd xar daganul pour ñu bokk tabaski na leer waaw ku amul xar bay yaa ngi fi uta sikket bu baax waaw ah, waaye nag jago xar a ngi fi de